bokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk ci xew-xewu jamono bokk yi ay ab diire ngi nii ñu ngi dégg ñoo xam ne dañuy nekk bañ ne baasin yàlla ñu ne fojjat di dox seeni muraada ñooñu nag bu ñu leen seetee dañuy jëfandikoo ci ñoom li wolof di wax naan yedd yërëm a ko gën li ci ëpp ci ku am lu mat juróom benn fukk mën nañoo doon sa ati doom mën nañoo yor sa ati doom ku ko yées tuuti mën nañoo yor sa ati rakk wala mag tuuti kon boog ñoom la ñuy jëkk a waxal ñu xam ne dunduk adduna dafa gàtt gàtt lool doonte téeméeri nit la fi yàlla àppal nit ba mu xam ko it lu néew la ci li fi adduna amagoon ak lim fiy amaat gannaaw moom bu bu faatoo gannaaw bu fa amee téeméeri at diggante bi lam fiy fàggu jamono ba mu koy man moo gën a gàtt ci ak dundam jamono ba muy man di liggéey moo gën a gàtt fuuf bu ñu dendalee atam yi mu am yépp at yu néew la su ko defee nag loolee mu cay fàggu na bàyyi xel ne lu mu bari bari buy demit tuuti lay yóbbaale te li muy yóbbaale sax du xam ba xam yóbbaale na ko mu déet muy ay morso yu néew moo koy topp su ko defee nag dana fa yóbbaale dara waaye lam fay yóbbaale buñ ko ko tegaloon ci film mu di ko xool saa bu ko xoolee wat day du mooyu ndax bëgg koo teg bët su ko defee nag lépp loo xam ni daf koy fàggu te ñun ñi ñëpp kenn xamagul kañ la ñuy ñëw ci yow kañ ngay aaye waaye su boobaa yit ñu xam ne lañ cay fàggu lépp lu nit di fàggu bu ca tasee yaakaar dajale waat ca yaakaar dana jafe yaakaar moom ku ko tas dajale waat ku lu jafe lay doon kon boog ak dund diggante bi ci nit di man lu tuutee tuuti la doonte téeméeri at la fi am su xase ba waa su weesu juróom fukk ak nangam rek ñu bari dutuñ ko nangoo jël mu di leen liggéeyal kon day mel ni fàggu mi ngi tàmbalee ci ñaar fukk ba ñeent fukk ak juróom jëm juróom fukk su ko defee nañ tegg seen tànk te wàññiku te tuub loo xam ne boo koy def bëggoo ku la gis jagut suñ mag moo jàngale woon ne fexe leen ba sax ci lu baax ne teg mu am ku ne ko la ca des nag mu ne ko la ca des bu ci sa yoon nekk mu ne ko nu may xame lu baax mu ne ko lu baax moo weesuwut loo xam ne boo koy def doo bañ ko la fa fekk doo bañ ko ko nett kon boog wàññi ko jot na fi mu ne loo xam ne boo ko fàggoo ba am ko it boo toogee di ko jëfandikoo xam na nga ko amee saw yaram day daw boo bëggee jógaat nooy def da ngay fexe ba bañ a ànd ak sa sako muy ñaar ba ñett yëf yoo xam ne day topp nit yowmal qiyaama te kat bis bu nit di weesu dund ko rek duutu duutu ca dellu si waat ñuy gën di jege bis bu muy faatoo waaye yooyu mën naa am yu koy waral ci ab société diiney lislaam ci mat gu mat sëkk taxoon sunu boroom di wax naan al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum al islaama diina amut lenn luy taxaw ci kaw suuf te amut lum ca mën a wax jaam bi ci nos gi muy nos ba nos luy pas-pas ak lu koy firndeel ci ay jëf daf caa nosaale yoo xam ne moom yu yu mu fonk la nos bu mu fonk muy ab jëflante diggante nit ñi kenn ku nekk ak moroomam ana nu mu war a siqi ak moom su weesoo dem ci boroom kër digganteem ak këram ñem ca siqal nu mu koy siqi ak ñoom dem ci ab quartier dem ci village ba ci dëkk bi gën a mag muy dem di dem ba ñuy tudd koo xam ne ñooña ñépp moom la ñuy déglu su boobaa nag lislaam am na lum tëral loo xam ne kuñ jëflanteel te waruñoo jëflanteeg yow noona neexu la mënoo ca dara am na bat bu mu teg fële boo xam ne ki néew doole ak ki am doole ñoom ñépp war nañ ko mën a yaakaar ci bu fekkee dañ laa tooñ te mënoo fayal sa bopp te waroo fayal sa bopp loolu la ñu tudde yoon yoon mooy al adala al adlu al adlu moomu nag buñ ko tuddee xel dana dem ci ay atte waaye weesu na ay atte weesu na ay atte maanaam nit tooñanteeg moroom rek ñu yóbbu ko ci li ñuy wax yoon ku ne xam ne ne yoon lu am la waaye la cay nux nuxi ci ab xol mooy na ca ka cay jaar di jaare loolu la tax ñuy wax yoon bu ñu ko joxoñee rek joxoñu yoon ci boppam waaye ka ca doon jaar yoon wam ca jaare bu ñu koy leeral nag yoon mooy lan mooy daal batt boo xam ne bii ku dem boo bu sag ay ñëwee mu jox la nga nàmp minit ya nga war a nàmp doo ko ëppal doo ko yéesal boo ko saxee te nàmpool yaa ko xale yëg waaye moom bu minit yi jeex mu jël batt ba jox ko keneen du yéesal du ëppal loolu mu tudd yoon ci baat bi muy melokaan woo xam ne nag melokaan yor war yoon war a am suñu boroom daf koo fonk ba boole ko ci ay melokaanam kuy tudd kuy lim asmaullahil xusna dana ko ca limaale mooy koo xam ne lenn lu ca nekk na mu ko tërale ku ca jaar doo jàppanteeg sa moroom téere baat mu mel ne suñ tuddee yoon xel dana dem ci yu bare bare bare bare waaye li nit ñi gën a dem rek mooy atte yi waaye bokk yi su fekkee yoon moom moo tëral ne yéen ñii yéen bu leen neexee doxe ci nii ñaa ñoom suñu caa doxe nen lu dul la neex ñii rek su boobaa nit mën naa jóg di jaar fu mu warta jaar loola la ca gën a ràññiku mooy yi nga xam ne yàlla daf koo def ci biir suuf si nga xam ne ñii ñëw ñépp ñun ñii ñëw teew fa la ko suñuy maam fekkoon donte xamuñu ko woon yàlla fàggul ko fi ay sëti sëtaata ki sëtër ci ca kanama kanama kanam ci misaal rek suñ ca joxee ab cër ab lim boo xam ne ñoo ci gën a yey ña ca des su boobaa yoon a ngi taxaw waaye nañ ca doxe moo indi dang daay ka moo ne déggees na fi bataay yi it bu dee ci àtte yi lañ jëm si wax ak nit rek mu ne danaa la tëj te moo ne moom bokkut ci ñu war a tëj xaw ma nag nu muy def ba man ko waaye gisees na ko bataay yi te la mboxoon day wér wala koo xam ne daa tooñ dañ koo tooñ kon daa tooñ moom daa am kum tooñ ba noppi wëlbatiku ne ko yow kat da nga xam ne du ma sama rom danaa la làq jant bi loolu it xawma nu muy def ba man ko waaye léeg-léeg it ñu gis ko wala ñaar defandoo lenn ñu ne ciix kenn ka bàyyi fa ka ca des du mooyu ko mel ni ku ko gisul loolu it bu dëkkut bare na lu mën a am loo xam ne nattu suñu borom lay doon ndax xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu gudd la lu mel ni ab xutba la ko defoon ndax ci li ñu tuddee ghazwatul fath dafa am jigéen joo xam ne daa sàccoon loo xam ne ku ko sàcc dañoo war a dog loxoom xëy na mu am ay xame ci biir mbooloom am na ko daal am na ci daal ku ñu daan wax Uzaamatu bnu Zayd soxna sa jàmbat ko mbiram moom Uzaama mooy mu ñëw ci sallallahu alayhi wa sallam ne ko jigéen ji dañoo bëggoon ku ko yërëm di ko ñaanal lu njëkk daal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko waaw Usaama yow loo ma yabe ci suñ waxin ba fekk loo xam ne yàlla ko rëdd mun a wét alsaariqu wala walsaariqu walsaariqatu faqtacuu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min allah nga bëgg ca lan bëgg ma caa wax loolan ginnaaw bu yàlla waxee tëral lim tëral ñépp xam ko mu ne ko maa ngi lay jégglu te ñaan nga jégglu ma yàlla di tuub ci kanamam mu jéggal ma dama juum yonent bi ne ko mi ngi waat ci yàlla xanaa lu yonent bi di waat koo xam ne du waxe bakkanam mukk te lu mu wax dëgg la fañ toll lay waxee ak ñoom am na ñooñ booy wax te waatoo duñ ko gëm mu ne ko Fatima mii de ma jur bu defoon lii daw si def ma dagg loxoom bi kooka nag bokk yi ba yoon amee moo ci na ñàcc teg ca tànkam te du geesu su ko defee kon faaw ñu delloosiwaat lenn lu nekk ña ko bokk kenn ku nekk ñu jox la ci sab cër ba nga xam ne sa wàll ngi ci daa ak segut ci yow gëm loo la ko waaye su fekkee dem nga ba naagu ci ne lii ñu séddale mënoo cee am jëfandikoo léebu woowu nga xam ne tasaaroo woon na bu yàggutoo ci ne ñett a ngi nii ñoo xam ne kii daa dem ci réew mais kii dem ci meneen réew kenn ki ñëw Sénégal nee na réew mais boo fa demee dañ naan la demal andil ma say këyit ma xool ko xam fi nga jaar moom diplôme rek la gëm xamul ku ko mën a ku ko mënut waaye ku yor këyit yi la gëm mu dem ci meneen réew ñu ne ko demal loo mën a def lan nga man gis nga mbokk yi xam ko man ko moo ko gën a wóor kooku ne ko amee loo mën a defar bu nee nangam la ñu ne ko defal ñu xool ba lañ laa jox nee na ñaari réew yi moom noonu la ñuy doxee kii naan ana say këyit kii naan loo man waaye nee na bi mu ñëwee ci suñu réew mii nag moom laajuñu la kay di laaj muy ay këyit laajuñu loo man dañ naan la ku la booleeg man ku la booleeg man nag ca la yoon tàmbalee wàcc ña cay dox ca lañ tàmbalee wàcc yoon wa ndax fas na ko yéene sédd cër boo xam ne du ko sédd kam fa taseel te kenn boolewu kook moom moo ne sëñ bu mag bi firi na aayab alxuraan bii nga xam ne ñu bari seen alluwa soriwut waaye jàng nañ ko jàngat ko waylun lil mutaffifin alladina ida ktaalu ala annaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wazanuhum wazanuhum yuxsiruun ala yazunnu ulaika annahum mabuusuuna li yawmin azim aaya boobu day wax lu mel ne am njaay naan aw xur wu xóot wu metti am na ñu say dem ëllëg ñu ne ñoom mooy ñi nga xam ne bu ñuy jëflanteeg yow ci wàllu liggéey bu dee jaay ak jënd boobu moom lañ ko doon xam ba léegi mi ngi am bu ñu le bu ñuy jënd ci yow dañuy fexe ba bala moo daanu jëlub diir waaye bu ñu lay jaay dañuy fexe ba mu gaaw a daanu bu ñuy fexe ba muy yéex a daanu la cay topp dañ koy sàcc ci yow waaye bu ñu lay peeseel dañuy sàcc la ca waroon a tege mu féetewaat ci ñoom aaya ba nag laaj ne waaw ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun baadu ñooñu dañoo jafe ne ëllëg si bi duñ dekkiwaat taxaw ci kanam suñu borom moo tax suñ bu mag bi ne ku bëgg a teg sa tànk ci yoon da ngay jëfandikoo yaari bayit yi da ngay fexe ba kenn ku nekk lam war a am nga jox ko ko boole ko yéene ko ko nag bul ko ko jox ci kaw suñu ma la ko bañ a jox rek waaye da nga koy wan yéene ji ma sëkk ci ne lii su ma la sañoon jox lu ko ëpp jox la ko irham uxayi jamia alxalqi kullihimu wanzur ilayhim bi ayni lutfi walshafaqa waqir kabirahumu warham sagirahumu wa raaci fi kulli xalqin xaqa man xalaqa kenn ku ci nekk bu ñëwee taxaw ci sa kanam te yaakaar ne yoon moom mooy batt bi ñëpp war a nampe rikk soo ko xoolee muy gone jàppal ne yowee baayam lu dul teg ci sa loxol doom bul ko teg ci loxob kooki su fekkee xool nga ko mu tolloog sa wéyjur wala sa mag xoole ko su fekkee yéen a maase nga jàppe ko ni kat loo bëggut ku la ko def bul ko def sa moroom loolu sax génn na ko cadre nit ñi waaye daf ne lépp lu yàlla bind daal xool ci yàlla mi ko bind rek boo ko boo ca xool yàlla mi ko bind doo ca juum su ko defee nag kon bett nit ci këram fas ko yéene yongu yongu ko mooy faat ko yàlla na yàlla jéggal ñim jot a jaag seeni loxo teñ tuub amul lenn lu nit di def ci kaw suuf loo xam ne bu ko tuub yàlla dëgg ko jéggal tuub ga nag mooy rëccu ko te fas yéene duutu ci dellu mukk waaye romb nit it jël lam yoroon mu wax wax amut pexe mu jooy ne bàyyi na la ak yàlla bàyyi na la ak koo xam ne kii doo ko rëcc mukk waaye it léeg-léeg mu am kooko wane sañ-sañ bu rëy ci ne fu leen neex dem leen man fu ngeen ma yóbbu fara leen di bàyyi te moo ne léeg-léeg xaw mu nu muy demee nag waaye léeg-léeg it mu amee noona su boobaa nag faw yàlla daf ñuy teg nattu boo xam ne duñ xam lu mu doon ndax xutba boobu ma doon wax moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba marax jotee mu jóg taxaw rek tàmbali ni muy xutba ne xanaa xamu leen ne la alagoon ñi leen jiitu woon mooy ñoom dañoo tëraloon yoon ba mu àgg ca dëkk ba waaye nag dawuñ ca dox te teg gi wala ñu daan jaar bokk yi léeg-léeg nga dégg nga dugg ci oto mu jaar ci yoon wu xaw a bari ay pax neexut na mu war a neexee daal nga dégg ci oto bi ku ne tey nga jaar ci teg bi moo gën a neex moo gën a neex waaye teg bi fu mu jëm léeg-léeg mu sore ak tëli bi lool de ba nga naan mbaadu dañoo far bàyyi yoon wa ñu waroon a jaar léeg-léeg mu dal aw nit yomb naa xam yénent bi nag nga leen ñooñu dañoo tegg woon seen yoon seen seen tànk ci yoon nañ ko doon defee mooy ku fab lum moomul wala mu tooñ tooñ gu wér ba ñëpp xam ko te bokk ci yax sàngam ñu nës nësal naxasaayal ba mu doxe fa réer ne mër kenn dutu dutu am trace su am jeexit waaye ñenn ñi nag buñ ne cas ganaar ganaaru si jàmbur te joxu leen ko sax ñu ne ko raw fàtte ko la mën na faa faatoo ca la doon texte bi moo nekk nii amma ba'd fa innama ahlaka an-naas qablakum أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها كساسة من أنا جيجن جو يدون نان جك تلي يالا تلبا نوبي mu ñëwal boppam ne maa ngi mu ngi nii mu ne dagg leen loxo bi ñu dagg ko waaye ana lum jural jigéen jooja aïshatu radiallahu anha nee na lam ko jural mooy tuub gu wér jublu ci suñu borom kenn dutu ko teg bët ndax kersa gum am ak kuuñam boobee waaye nag saa bu amatee yitte xelam dina ci sàcc waaye dañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko damaa am yitte sàngam yonent bi fekk ko mu delluwaat ba ni mu amee borom kër kon bokk bokk yi réew moo xam ne ku ma booleeg yow moo fa nekk yoon na fa yoon na fa ne léng nekkal fa ñëpp ci fànn gu nekk moo xam muy luñ bokk wala loo xam ne nit ki moo ko moom ñu xañ ko ko te amut fu mu jëm li ma wax ni ci ne ku ma booleeg yow am nañu jàng jàng jàng ba mën a yor lu nekk waaye ñoom sax dañ koy wax dañ naan ñaanal ma damay déposé ci barab sàngam ah yow li nga yor ku ko yor lu muy lu muy sonnati mu ne foofa faaw nga am fa loxo bu gudd door a mën a sotti loolu nag su dëkkut fitna ji ñu yàllay teg mooy lii rek kenn xamul kañ lay aaya fi ci ñooñoo noonu waaye ñi ngi leen di ñaan nag ñi nga xam ne suñu ati doom lañ yore ñu wàññiku ñi nga xam ne ati rakk lañ yor ñu dëpp man giñ koy man lu tuuti la te nit mën na ca amee gàllankoor bu adduna boo xam ne bii lam ca amoon lépp dutu ko bëgg a teg bët te waajur yi it delluwaat woogasaat seen yoxo yi mbubb fas yéene sonn ci njaboot gi ndax yi ñu wax nii mooy feeñ rek waaye am na yeneen yu feeñut yoo xam ne aw nit a ngi koy def te fekk ña leen indi adduna ci coobare suñu boroom amuñu ci ñoom soxla fañ leen amee fa lañ leen wane gannaaw ndax lii ak laa ba ñu xëy di def yoo xam ne ku ci sa ku ci sa bët tege nga du mooy doo ko bëgg a gis doo bëgg a gis ku ni mel su ko defee yàlla mi nga xam ne moo man lépp sañ lépp yàlla na walbati ñëpp bañ teg wat ci siraatal mustaqim ñi nga xam ne it seen bakkan des na ca yàlla na yëla mën suñu borom daw ci ñoom ñi nga xam ne it dañu ne njaboot gi yàlla leen di sàmm rek yam ca képp wala mënulu leen dara mënulu leen dara rek yam ca nañu xam ne layoob ëllëg ngi ñëw ci jamono yi Seydina Omar am na ku ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa bëgg nga àtte ma ak sama wayjur mu ne guléet loolu de li ma ko dégg bariwul lu ngeen war a jote mu ne càll wayjur yi bëgg a wax mu ne ko déet ku kalaami ka yaa jëkk a wax al bayyinatu ala al mudda'i mu ne wutaluma wayjur wam ma war a wutal ñaareel bi it tuddewuma turu wu rafet yar moom waxaale wuñ ko ba maa ngi nii fu ma jubee samay moroom ñu wan ma gannaaw daw mu ne loolu koy àtt na boppam ba noppi kenn du ne baay tuubalal sa doom de waaye jox ko loxo rek taf ko ci sa dënn ndax xolam daal ngeen ànd dem te nga def ci sa kem kàttan ba ba yàlla di dikk loolu aw yoon la ndax dafa tase ku ko soob rek nee na ni mu ko tuddee mooy gunóorum mbiri ngaan la ko tudde ba noppi it wutalu kam ko war ka ko war a jur loolu nag weesoogut ndax waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran la lay leeral waxi ñi ko gënoon a jege te jaayoon seen lépp ànd ak moom it lu ñu wax rek mën nay wéy ba fii mu nekk kon ku ci am mbokk mu ko gën a jege suñu bokk la ñoom ñëpp yàlla ñu ko boole moo ñu boole def ñu ay nit ku ci am mbokk mu ko gën a jege na ko woo waxtaan ak moom waaye jël ko yóbbu ko barab sàngam baax na de waaye am na foofu dir sa gaaw a yóbbu aw nit tax bu ñu xamee la fa nekk jeex waxtaan wi daal lu ci am solo la ak laabiire gi ak defal leen xamal leen ne tuub weesoo ku tuub yàlla mën na koo jéggal يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين